waaw sedd de position man li ma li ma xalaat mooy dañ ko war a différer dafa nekk loo xam ne mënu mënaguñ ko régler euh, ndax ñëpp xam nañu Abdoulaye waat président Abdoulaye Wade su demoon ci élection yi wax dëgg yàlla euh, ak coalition am mooy jël deuxième élection yoo xam ne aussi euh, ay figure politique yu mag bokkuñu si donc pour man jàpp naa ni dafa gënoon a yomb ci nga xamante ni ñoo ànd ak Macky Sall mais am na ñu bëri su xam ne suñu bokkoon.

bon ñu bëri Ablaye doon Ablaye Wade bokkuñu je pense daal nañu nañu xaar ba prochaine élection résultat yooyu dina génne kan mooy deuxième force politique du du Sénégal.